Kenya teeru gu rëy lañ jagleelan ki nga xam te ne moo di Jill Biden mi nga xam te ne moo di jabari kii di Joe Biden nekk première dame fële ca États-Unis gannaaw ba nga xam te ne dem na fële ca Nairobi ngir am yoo xamante ne dina ko fas yéene muy gëstu ci lu jëm ci sécheresse bi nga xamante ne ma ngay menace ñi nga xamante ne ñoo di waa eh, Kenya kooku mujjee na di leen alerte tamit ci sécheresse boobu ci ni kat bu ñëwee lu bëri bëri ci ak jur nar na nar nañoo dee naka noonu lu mat ñaar fukk ak ñaar ci ay millions doomu aadama yoo ni lii de ak xiif mi ngi leen di yoot bu boobaa moom moo kii di eh, eh, Jill Biden gannaaw ba xamante ni jaar na fële ci fële ca Namibie mujjee yéen a jaar ak tamit fii nga xam ne moo di ca Nairobi ngir gëstu li nga xam ne moo xew ci dëkki Afrique yooyu noonu balaa muy dem ci li nga xam ne moo di conseil national conseil de sécurité bu Nations Unies bi ak it li nga xam ne moo di sommet g bi nga ne ca loolu mu jëm moom kii di euh, Jill Biden teerut nañ ko teertu gu rëy ci fële ca Kenya nga xam ne fa la demoon ci ngoon.